sant yàlla bu baax a baax a baax a baax suñu gëj a bëri ak suñu ñàkk a du suñu coobare waaw coobare suñu borom la rek blessure moo tax bëriwuñu mais ñun bu dul woon blessure amaana tey jii nii kon leneen la ñuy wax mais blessure moo taxoon bëriwuñu xam nga bi ñu amee blessure def na aussi tamit affaire bi xaw a yàgg moo waral temps bi sax mu xaw a diire mais alhamdulilah ba nga xamante ne instant yii nii yàlla dimbali nañu faju nañu ba wér ba ñu nekk di waaj combat ba nga la ñuy maa ngi lay maa lay fay baa jëli. damay bëri koo xamante ni. bu déplacé yaakaar naa ni Yoff Wakaam Ngor Yoff yëpp dañuy jóg. ànd ak mu ne yow la dégg nga ni mbër musulaa daan ci bëri. te moom mooy seule personne bi nga xamante ne da laa fas yéene daan ba toog ci sa loolu lan nga ci wax. loolu li ma ci wax bariwul. parce que dimanche yàggatul saaga yàkkamtee xeex la. li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko. instant bii nii ay réglages yu ndaw rek moo des. Hmm. bu ñu leen lu ñuy wax. autorité yi nek Dakar Plateau lañuy ñuy rek ñu ñew japp lañu ci biir yi ak bay refond yi ñun lool kese lañuy ñaan gars ñew japp ñu dooleel ñu japp lañu ci biir yi surtout biir yi parce que mobilisation biñ ci soxla fallait que gars yi jàppale ñu si billets yi té soxla nañ ko torop torop torop torop torop torop mais instant pour sama adversaire awuma dara lu may wax ci mom li wax ci mom bari wul ndax biir na ma ni man mako man fouf lool leer na ma nañu ñu li may wax ci mom li may wax ci moom moo tax li may wax ci moom du bari voilà li may wax ci moom li may wax chaque jour rek li may wax chaque jour rek xëy na làmb moo tëradi ak ndong-ndong moo waral mu demee nii mais sinon du woon sax ma ak moom kon du adversaire boo xamante ne tey jii nii war naa toog sax di ko calculer wala dara li ma seq ak moom mooy arbitre siffle ma jëlee ko fi te dimanche yaakatul incha allahu rabbi voilà. bu ne xam ne ni Modou Dia dafa nekk mbër moo xamante ne soo koy dóor day ñëw te bu la jàppee làmb ji jeex te gëm na ni ci wàllu bëre. li mu yor ci weccitu bëre xaaj xaajaat bi yow yoroo ko ba pare jaral ko mu waat ni da lay daan toog ci sa biir. waaw loolu muy wax. lu mu indi ñu wecc ko. fii la fekk baax moom moo mën a wax di wax rek moom daa mën a wax di wax mais li mu umbale dafa bari li mu umbale dafa bari trop trop trop trop te wax naa la ko dama la koy wax nee naa la instant bii nii li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko instant bii nii jëf rek moo des te wax taxul biir fees quoi ñun ku ñu xam ku ne xam ne ay jàmbaar lañ parce que ku def douze combats am dix victoires. deux par décision arbitrale loolu ku ko def da nga xam ne kii jàmbaar la te ñun suñu tànk kanam musul fekk bu ginnaaw chaque jour bu arbitre sifflé li ñu gëm mooy arbitre bu sifflé dañuy dox sa kaw duma la daan la ñun loolu lañ mës a gëm loolu la ñu andi chaque combat kon instant bi nii jaratul ay wax yu bëri waaw ñaan jàmm la ñuy ñaan rek yàlla suturaal ñu defal ñu jàmm ba lépp li nga xamante ne tey jii bëgg nañ ko yàlla defal ñu ko ci géew bi lu fay neex ñun ñoo koy def. voilà loolu laa bëgg ngeen xam ko géew bi lu fay neex ñun ñoo koy def. voilà. nee na bëre nga ba mi temps nga ba arbitre tàqalikal sa adversaire ngeen dem naani ndox mais moom loolu yëpp mosu koo dal ci làmb te seen combat yéen ñaar moom li mu gëm mooy ngir yàlla war a sóori nga taxaw dëggal sa bopp moom nee lépp moo koy def. waaye taxaw loolu wax bu yàqu ko quoi loolu wax bu yàqu la gëmmal matuta wax gumba kon am na yenn yoo xamante ne ay détails la rek ñun kenn duñu wax ay dëggal sa bopp waaw dëggal sa bopp moom lañ koy wax na dëggal boppam te bañ affaire yooyu muy def arbitre siffle ngay daw di dem ci ay saako. mu ngi nii di la xool wax waaw eh da nga dëggal sa di dem ci ay yooyu amu fi. boo dawee dem ci saako yi itam day gën a mes yow ndax dama la fay fekk ruuj sa bopp bi ci biir saako yi. lay fay maa lay fay waaw ak dégloo waay ak dégloo waaw waaye xanaa déggoo capitaine Ndakaaru bi yow wala yow déggoo loolu xanaa ah, déggoo loolu capitaine Ndakaaru bi moo ñëw bu ñaaw bu ñuul bi bu soxla bi moo ñëw voilà. Hmm? ah. waaw ñun fi ñu toll ci làmb li ma wax chaque jour rek ñun làmb ji moo ñu ñor du adversaire bi du adversaire bi mais làmb ji bés bi moo ñu ñor. parce que bës bi moo am solo suñu carrière parce que boo xoolee toog nañ trois ans ñu waaw kon xam bu ñu defaatee retour retour bi dafa war a nekk loo xamante ni du adversaire bi mais bés bi bës la boo xamante ni bés bu waa Ndakaaru soxla la bés bu Dakar Plateau soxla la particulièrement nag waa Rebeuss ak waa Niayes Thioker bés bi dañ ko soxla trop trop trop trop trop voilà te xam nga rek waaw comme ni ko gars yi waxee quoi yomb na góor quoi voilà. mais waaw baal ma rek menn seetlu ma def quoi par rapport ak écrit boo xam ne eh, ay année ci ginnaaw mm-hmm. maanaam bari woon na ay mbër macha allah bëri woon na espoir mm-hmm. mais boo seet boo defee seetlu mm-hmm. bi maanaam boo defee seetlu bi li ñu gis mooy ah dugul ma te fan la jëlee kontak parce que ñun gisuñu fi kudul benn saal ba wal lañ fi gis ci mbër mu ñu xam léegi maanaam wàllum contact parce que adversaire bi ngay bëreel dafa nekk mbër boo xam ne boo ko xoolee da ngay xam ne moom il est prêt moo tiit waaw xam nga tey jii ñun Dakar lañ nekk te Dakar am na lépp li may wax chaque jour rek xam nga tey am na loo xam ne du lu ñuy wane mais tey jii nii ñun Dakar lañ dëgg Dakar ku ne xam ni instant bii nii làmb dafa saf Dakar boo bëggee dëgg-dëgg ay champion ñu ngi te champion yi nekk Dakar yëpp suñu diggante dafa di tax lu naas dañ seq yàlla dogal nag man maay capitaine bi pour ay côté ay contact yooyu noonu loolu naa loolu loolu loolu loolu amul problème. waaw non dama ne dama wax benn wax boo xamante ne dama bëgg ngeen bàyyi ci xel mooy man du adversaire bi man adversaire bi bëgguma sax di wax ci moom lu bari yàlla xam na ne adversaire bi bëgguma sax di wax ci moom lu bari man bés bi moo ma ñor bés bi. parce que bés bi dama xam li mu waral li mu jaral waa Dakar Plateau jaral ko waa Ndakaaru jaral ko waa Rëbës man kon bés bi moo ma ñor mais du wallahi azim du adversaire bi mais bés bi ñor parce que adversaire dara lu may wax ci moom li ma gëm mooy arbitre bu sulee fu mu nekk dama koy fekk dama koy daan ñu ne moo la dàq bëri nga ne danga ko fay fekk danga koy loolu yëpp na jël anyway man musuma bëri nit koo xamante ne dañ ko dàq bëri mu ma ci kon yooyu amul solo yooyu garaawul man bés bi ñor ah. ah non non yow maa ngi yoof sax dootoo fa jaar yow boo génnee ci moom yoof sax dootoo fa jaar. waaw loolu ay détail la rek moom day wax rek moom dafa kontaan di wax rek mooy li la wax rek instant bii xam moom na féetewoo wax ji quoi dimanche yàggatul dimanche lépp dina leer incha allah sa combat passé waa Rebeuss waa Plateau kenn kontaanul si yow. waaw ah. bi ngay bëreel moo tax. kontaan nañ eh nekk xam ne ku nekk xam ne lu mu si xeex ak bëri. adversaire bu mu dajal da lay andil safara andil la safar songu la andil lay problème yu dul jeexu xaaj te sa combat bi passé kenn nga demul demee ndax état de forme bi double yoon. waaw ah. eh, double moteur. préparé moo jaax jëlee ko indi ah, dama ne. wax naa ko dama koy waxaat man pare wu ma pour Modou Dia lu bi sax da nga ba léegi maa leen di wax benn xaw ma bàyyi leen ci xel. waaw non Modou Dia laay bëreel mais bés bi moo ma ñor du adversaire bi man bës bi moo ma ñor bés bi laay jaayante pour nu ma ko téye mais du adversaire bi parce que adversaire bi man bii na ma ni maa ko mën aller retour waaw bi bii na ma ni man maa ko mën aller retour. mais bés bi moo ma jaaxal man bés moo ma jaaxal moo ba léegi maa ngi wax man li may rek mooy autorité yi nga xam ne ñoo li laay war a sul nañu dimbali jëndal ñu ay billets parce que booy dañuy am ay problème mu billet dañuy am ay problème mu car nañu gars yi jàppale si ay billets loolu kese laay ñaan ñaanuma leneen man bés bi moo ma ñor du adversaire bi man adversaire yi nii nii du ñoom laa war a bëreel bu caaxaan jeex a dëgg la du ay moté yi laa war a bëreel arbitre siffle dimanche ma jàpp ko daan ko te si kattanu yàlla ak mbaaxam loolu laay def waaw déggoo li ma la wax li ma war a def li ma war a def laa la li ma war a jëf la bis ba loolu bis ba lay xaar du lu may nekk fii di ko wax adversaire bi muy Modou Ndiaye li ma seeq ak moom lenn la mooy man biir na ma ni laa la wax catu weeyam sax bu ma ko jàppee dama koy daan waaw amul leneen lu may sóoraale ci moom wala dara xamee turam

gars yi ñoo gis ay poids te man <coughs> wax dëgg yàlla wàññi naa poids bu baax a baax a baax man naa poids bu baax a baax a baax a baax waaw parce que xam nga waaw te poids aussi tamit c'est normal ñun fi ñu toll ay xale lañ li may wax chaque rek ñun ay xale lañ ñun dañuy yokk rek mais duñu wàññi ñun yokku lañ ñun yokku lañ war di def mais duñu wàññi parce que dafa am loo xamante ne tey jii dañ ko am ci làmb muy cër boo xamante ne Dakar Plateau da am ci làmb te dañ ko war a jël kon pare wuñu pour adversaire yi nii dañuy pare pour ñu si kaw parce que tey jii bu fekkonte ni tey jii nii bu dul woon bi ma am bi ma xaw am ni toog temps bii nii bëréew ma kon instant bi ñi si kaw laay bëreel kon adversaire mbër yi si kaw laay bëreel mais blessure bi ñu am ak temps bi ñu toog bëréewuñu moo waral aussi tey jii nii ñuy bëreeg adversaire bi nii mais bés bi moo ñu ñor du du bi voilà. sant mi ngi gudd waaw loolu allahumma amin laay wax loolu allahumma amin laay wax waaw damay wax allahumma amin damay wax allahumma amin allahumma amin waaw loolu loolu loolu bi di la fanaan ak mbooloo mi ñëw keroog ci open press am loolu bi la fanaan non Modou Dia xam nga tey côté mbooloo bu ñu ko dee wax bu ñu ay côté mbooloo côté supporter bu ñu ko wax fii la fekk baax ñun yàlla moo ñu dimbale benn affaire li may wax chaque jour rek solidarité bi a rëbës amul fenn waaw boo xoolee tey jii nii Ndakaaru li muy yaatu yaatu solidarité bi am rëbës amul moo tax tey jii nii ñun duñu dara ñun ni ngay gis ni duñu waaj dara open press boo xoolee si deux jours lañ ko jàpp waaj ñu dara ñun dañuy jékki-jékki benn coup de fil mooy daw rek ñu ne eh lii la ñu war a def rek ñëpp ñëw taxaw présent ñun chaque jour gars yi ñu ngi au présent moo tax ñun amuñu problème yooyu noonu comprendre nga bu dee côté mobilisation côté yooyu noonu na seen xel dal waaw ah, ñu ngi siy woo Ndakaaru bi yëpp li ko dalee Cap Manuel ba Gueule Tapée waa suñu baabu Boy Gaynde moom dañ koy sant baax di ko gërëm waaw moom <laughs> suñu baabu Boy Gaynde li tax ma koy sant di gërëm moom dafa ñëw fii nii représenté fi mille pour cent Médina waaw parce que moom coordonnateur la biir mille pour cent Médina moom mooy seen représentant fii nii pour nga xam ne combat bi combat waa Ndakaaru la waa mille pour cent Médina bi yëpp tey jii nii gis naa seen teewaay parce que tey jii bu Boy Gaynde ñëwee rek muy coordonnateur groupe bi rek kon ñëpp tey ku ci mel ni Mbaye Gouy Gui teewal na képp ku nekk Bawol mook Mor Kankang teewal nañ képp ku nekk Bawol ak na Labrose ñoom teewal nañ képp ku nekk Bawol ak ku nekk Médina ci ay mbër comprendre nga baax kon loolu nice voilà loolu dañ ciy sant bu baax di leen ci gërëm <coughs> waaw liñ woo mooy dañu woo suñu papa Diop si suñu papa Diop si ñu koy woo bu baax a baax a baax a baax a baax ci combat bi pour mu jàpp si xam nga di woo aussi tamit suñu monsieur le maire Alioune Ndoye ñu koy woo si combat pour mu jàpp si jëndal ñu ay pour xale yi mën a mobiliser wu dem ku ci mel ni Babou Touré Papis Niang ku ci mel ni Seydou Camara ñooñu dañ leen di woo ci combat bi ku ci mel ni Bokar Diela borom fast bi xam nga ku ci mel ni Ilimane Gueye taalibe Serigne Saliou ku ci mel ni Abou Maysa comprendre ku ci mel ni Mortala Gueye taalibe Serigne Saliou mafia ñi nga xam ñoo nekk États-Unis bi ñi gaa yëpp dama leen di dama leen di woo ci combat bi ay Xaadim Jaxate ay Gamsi Booy ay Mbay Booy Ñaa ay Caatu Mbomboy comprendre nga ay Mulsugu Serigne Saliou ay Diop Dollar ay ñoom ñëpp dañ leen di woo Thiatou Rebeus mention spéciale waaw Thiatou Rebeus mention moom moom moom mooy loolu moom xam na man xam na maa ngi koy bu baax a baax a baax ndax ku sonn ci combat bi la xam nga ma la waa jeel bi aussi tamit gars yi maa ngi leen di bëgg bu baax a baax tey ku ci mel ni tey jii Tafa Saliou borom Six Avenue ak Mahmoud gars yi nekk Six Avenue bi yëpp ñu ngi leen di bëgg parce que gis nañ seen taxawaay ci combat baax a baax a baax a baax a baax xam nga nii <coughs> ku ci mel ni Lamine Sène mention spéciale amuñu fayam jeune la mais day sonn ci doomu Rebeuss yi waaw tey Yanda Diop Yanda Diop mention spéciale borom PLD ak bu ministre Omar Sarr moom dañ koy sant bu baax a baax di ko gërëm gis nañ taxawaayam ku ci mel ne Assane ak Ousseynou Kafin ñaari seexu yàlla yi sama pro yooyu noonu dama leen di ñaanal yàlla xam nga yàlla dafa leen tawfeex dafa leen waaw parce que ñoom dañ ciy jàpp ci saay di jàpp ci baat ñaari seex yooyu noonu dégg seen moyen di ci def maam Cheikh Anta Mbacke borom sañ-sañ borom ginnaaw raay maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm maam Thierno Mbacke imam sama sëriñ sama wasila maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ak njabootu Cheikh Modou Kara Mbacke bi yëpp Abdoulahat borom somon Abdoulahat borom somon maa ngi koy sant bu baax mook Baye Niass ak Ama ak Alpha somon monsieur le maire bu nekk somon gars yi nekk somon yëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm tey ku ci ni tey ku ci mel tey ku ci mel ni aussi tamit waa Médina na Médina beeg Fass Colobane Gueule Tapée surtout waa Colobane ñi nga xam ne fa laa dëkk gis naa ni ñu waajee combat bi ma di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax di sant Mame Gor Samb bu baax ak Abdou Got Saliou Diop suñu président écrit maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm comprendre nga baax gis naa taxawaayam ma fi àppeeku ji nag aw ma seen a waaw mafia Pegu bi mafia capitaine bi mafia Zembere bi mafia MC bi aw ma seen fay waa ñaay cokeer maa ngi di sant bu baax ñaay cokeer jamono sanjal comprendre monsieur le maire bu Somone ñu ngi koy woo ci combat baax baax a baax Saliou Diouf ñu ngi koy woo ci combat yi baax a baax a baax ak Baydi xam nga a bëri sembeen ñu leen di woo ci combat bi baax a baax a baax pour ñu jàpp si comprendre nga pàkk kajoor kajoor yi bool bool yi kenn tey boo xoolee pàkk bool bool yi angal sant yàlla bi angal sant yàlla may juum mais ñëpp maa leen di béggee gars yi fa nekk yëpp teg ko ci loxo Mbaye Diagne ak Xaadim Dooro Gueye ak Tévir ak Galas Gueye teg naa seen loxo ci nuyoo waa angal sant yàlla yëpp ay rapide gars yëpp waa kajoor aussi tamit xam nga sama sama mbokk kajoor kajoor yi waaw sama mbokk kajoor kajoor yi waa Lamjaan waa Pekes waa Béti waa Ndeer Naar waa Ndeer Olof waa Kuura Joor maa ngi woo ñëpp si combat bi ñu jéem a allah sama supporter yi nekk Wakaam sama supporter yi nekk Dakar maa leen di woo si combat bi ñu jàpp si comprendre waaw maa leen di déglu baax a baax a baax a baax